sécurité la dernière fois qu'est-ce qui s'est passé à Soumbédioune on a vu kilifa ñu wax ñu ne kilifa police bi ñëw na ne ko topp ma maa assuré sa sécurité waaye ba mu ko toppee bay génn tunnel bi ñu dóor leen ay lacrymogène mhm. ñu naan ñan ñoo tiire xam nga aussi ça pose problème mën nag dama xamul nguurab Sénégal bi yéen lan ngeen bëgg lan la ci y a ah yow. ne ko y mm-hmm. eh mi mi mi sa bu dee ay sondage dafa wane ni bu ngeen demee élection premier tour Ousmane Sonko bu bokkee day gagné. non dama ne bu dee ay sondage da wane mu leer leen nañ ngeen def defaat def defaat gis loolu waa léegi et après. waa léegi waxuma yooyu yëpp sax waxuma ko waa bu yàlla ne moo leen di remplacer nag <laughs> ma ne oui oui oui oui eh, eh, eh, waa dama waa léegi damay laaj yéen nguurub Sénégal bu yàlla nee waa ji moo leen di remplacer nu ngeen di def. <laughs> billahi di ngeen ko to di tontu de. nañ la tontu eh tontu leen nañ la tontu eh waa léegi damay laaj. eh kilifa yi wuy leen ma. Mhm. yéen nit nekk ci nguurab Sénégal waa léegi bu yàlla ne yéen yéen da ngeen di dem nag ñeneen ñëw bu yàlla ne waa ji moo leen di remplacer nag rafet leen ci bala muy gën a ñaaw xàmme na leen na leen te barewu leen <laughs> na leen de te barewu leen. <laughs> nañu eh, eh, eh. leen benn xam nga li gën gaaw moo xam nga lan moo gën a garaaw ci sot nit <laughs> sot nit xam nga lu ci danger. sot nit xeex boo xam da ngeen di ñëw sot nit bi ay bu leen xàmmee mu xàmme leen ñi ñoo doon dóor xuli ba jekku leen moo tax gars yi dañuy je comprends nag l'attitude am na ñoo xam nee nañu dee rek <laughs> waaye du falu dama koy dégg sax euh. euh, motaar la àndal ah. mais gisoo leen ñuy ñëw ngeen leen di sot jékki-jékki gangu motaar bi génnee fële moytu leen de mm-hmm. moytu leen def leen attention gis nga gis nit nit sax nee nañu nit boo kaa bañ sax bañ ko ndànk. bëgg nag moom kenn mënu ci wax nit bul bëgg bu baax ndax bëgg-bëgg la waaye bañ nit def ci ndànk ndax mën nga xool leen transhumance yi rek ñi doon bañ président Macky Sall ñu ci ëpp ñu ci wetam. gis nga loolu. ñun ñii ñuy wax ñun dañ leen a compte ñun ñun ñoo leen gënoon jege président Macky Sall ba muy metti uh-huh. ca wet ga ca wet ga ca ñu ca des tey ñi ko jege ñëpp ñi ci ëpp. noo ko daan xeex noo daan bañ ñii ñoo doon doxal loi Sada Ndiaye ñii ñoo ko initié ñii nangam nangam nangam ba teer fii tey nu ngi ko jege sës naan ko wuy booy dañ la contre. Mm-hmm. ruubekat yooyu. Mm-hmm. booy sa sa Sonko la il faut di ko jox ay idée rek bàyyi leen mm-hmm. idée yi. président lii mbirab justice la. yaa yore conseil supérieur de la magistrature wax leen eh kii jàmmal leen ko. dafa war a wuy tribunal bu xëyee na dem tribunal wuy ji heure l'essentiel na ñëw heure bu ñëwee mu dem ci procès ngeen assurer sécurité bu ko dara xuri bu ko dara xuri di ngeen am problème de eh bu ko bu ko def de jéem xel di ngeen di nit nag du dëgg gis nga nit du obsédé dinaa def dinaa baaxul booy kii dangay mu dëgër da ngay bàyyi def ndànk ànd ak xel def ndànk yàlla def na li muy def nangu dara leerul ne usmaan Sonko koy falu deux mille vingt quatre yàlla rek xam kenn mënu ko waat yàlla rek mais bu yàlla ne moom la nag. kenn mënu ci dara. lu si nit mën. kenn mënu ci dara yàlla mooy fale xam li xew deux mille vingt quatre. wallaahi loolu leer na mën xeex mën ngeen kaa jàpp mën ngeen def lu yàlla ne moom la nu ngeen di def ah yow. kilifa yi ñëw seetaan yéen ñu wax rek ci xel waxuma ci yéen li ngeen bëgg a dégg wala si li ngeen di bañ a dégg dama ne ñu wax ci xel waa bu yàlla nee moom la nag su fekkee moom la yàlla na gën ci réew mi su fekkee du moom yàlla na yàlla defal ko li gën ñaan man benn la yàlla na yàlla fal ki gën ci bopp réew mi loolu la ñaan man ndax réew mi ma soxol du président Ousmane Sonko bi jiite Pastef du président Macky Sall du keneen ak keneen Sénégal waaye bu ñuy observer di di di apprécier di jauger di appréhender di constater li noo constater nag mooy nguurub Sénégal yéen yéen a tooñ Ousmane Sonko yéen a ko dàq impôt du woon yoon yéen a ko xeex ba muy nekk assemblée du woon yoon yéen a yàqaat ay listam xeex ka ba muy bëgg député du woon yoon mm-hmm. yéen a yéen yéen yéen population bi wër leen domb def ko maire bi Ziguinchor soutenir que nag mu am doole ngeen na ca rek yéen du ngeen am xel xalaat du ngeen xoolaat te gëm yàlla yéen yàlla moo leen sàkk yéen kilifa yi jiite Sénégal sunu borom moo leen bind jox leen yaram jox leen xel jox leen xol jox leen lépp jox leen teraanga. Mm-hmm. àdduna nag lépp àpp la falu nga. constitution bind na mm-hmm. yow nga ñëw ne sax damay renforcer constitution doo dem ba jeexee jeex na nga ne du jeex <laughs> lànk. problème la de dëgëral problème la de. après ñu ne ma président waxagul d'accord waaye jëf ki yëpp mu ngay wane ne mel ni loolu la bëgg. Mm-hmm. ñu la jóg ñu la kii ñu la monter casquette kii te seen bracelet yi jarul gis naa ay bracelet APR. ah gis na ma ko. Hmm. waaw jarul. gis loolu kay gëmoo maa gis gis na ma ko am na foo gis. tout le temps ñu nekk ci. ci ci réplique. waaw waaw réplique defante euh, teg pas toppandoo. ñu toppandoo ci benn deuxième pas gis naa ñu dañuy dem place la nation. xam am nañ ci am nañ ci droit am nañ dëgg rek yàlla euh, am nañ ci droit. Hmm. en le président Wade fan la fan la fee sax. am na président Wade mu nga doon VDN VDN. waaw waaye ñoom mais ñoom am mais président Wade ba mu feesalee VDN Farba Senghor sunu baay bi nu nuyu dafa ñëw ne 1 million de personnes xaw uh-huh. mu jotee. Mm-hmm. passant en passant mobiliser yomb na. Mhm. yow dajale say nit ma dajale ñu dajale. Mhm. jox leen ku ne xaalis ñu ñëw taxaw. Mhm. coow li du mobiliser. coow li xel la. accepter la réalité sine qua non qui est que il y a de l'évolution dans un sens en matière de politique au Sénégal. ça c'est clair c'est ça la vérité en vrai. accepter ça. oui oui. Dieu a que. il y a quelqu'un qui était votre employé monsieur le président Sall ak ñi nga àndal il était sous votre coupole il était sous votre contrôle vous l'aviez en main da ngeen ko bëgg a jàpp tey non non vous l'aviez en main il était sous vos ordres. sauf que mënuñu ko fa tuumaal dara parce que moom foofu ay loxoom set na fa mais vous l'aviez en main il est votre employé il suffit de prendre le téléphone le ministre appelle. le directeur des impôts. Mmh. Euh, votre collaborateur Ousmane Sonko il est là-bas. oui monsieur le président oui monsieur le ministre oui monsieur le directeur. Euh, dites-lui de répondre day génn bureau. taal hmm. otoom wuy ji du xew jamono boobu. Hmm. waaye président dama ne président wëral ki la xelal wala ñi la xelal nga dàq Ousmane Sonko wër leen wër leen de. billaahi ñoo la tooñ. ñoo la dugal ci góota waaye boobu yàlla namm na waaw bu yàlla nammee dogal lu si jaam mën lan la si nit mën mm-hmm. il faut accepter la réalité tubaab jaru ko ange jaru ko leneen ak leneen dama ne bu Ousmane Sonko gënee ci boppu réew mi yàlla ko yàlla fal bu gënul léeg-léeg su ma nee bu gënul nag ñi ànd ak Ousmane Sonko dañ comme dañoo xër dañ ma naan non non moo gën man leen déet yàllaa xam ki gën bu gënee ci boppu réew mi yàlla na yàlla fal su gënul bu ci safaan amee yàlla na yàlla defal ko li gën defal ñu li gën. defal ko Sénégal. lii sama ñaan président bàyyil kii Casamance daa am ay yemb te yemb yi dañoo ciblé te yemb nag fu ne laa dem. yemb dina naawee dëkkoo dëkk yàlla bu ñu ñëw Ndakaaru Ndakaaru nag am na ay yemb. Mhm. yeneen yee nag ak yii bu ñu dajee mën na compliqué. en matière de yamb. coalition de yamb. en matière de yamb si si si elle se coalise si elle coalise les yamb les abeilles bu ñu dajaloowee baaxul si dëkk yàlla ñu ci yàlla muccal. parce que tey évasion de yamb. évasion et évasion. éva de yamb invasion de yamb yàlla ñu ci yàlla musal kilifa yi reetaanu ma demal li may wax ni c'est important yamb te yamb bu bëree day gaañ. dañuy yamb. <laughs> baal leen nu de billaahi baal leen war ma rek la ñuy waxee mais Sénégal war nañ ñu yóbbu ci yamb parce que nit ñi comme nit ñi dagal leen di faat nit ñi toog yamb yi jël xam nga boo tiiree ci yamb doo visé doo doo doo jam dara yamb. yamb xam nga yamb mënoo ko jam. moo féroce kay. ah yamb yamb yow yamb mënoo ko jam. <laughs> jéem ko jam xool. jéem ko jam xool. moom moo la jam. moom par contre yamb yi ñoo leen di jam donc faites attention. parce que yamba yi bu ñu jógee mm. Casamance te bu ñuy ñëw dañuy bari. day mel ni njéeréer yi bu yamba yi génnee Ndakaar guy ga Abdou Xaar Gay kilifa bi maa ngi laa nuyu guy ga bu yamba yi génne yamba yi génn Casamance am yu génnee Fuuta am attention on rigole pas. am na loo xam du dëgg bàyyi leen kii. Mm. na dem tribunal wuy ji mais teg leen les conditions bu mun a dem wuy ji sécurité. assurer sa sécurité garantir leen que le ministre de l'intérieur comme moo fi nekk. te waa F24 nee sax nag. F24 mooy seen ndam. F24 nee nañu bëggatuñu ministre de l'intérieur bëggatuñu ministre de la justice loolu beneen débat la mais yéen kilifa yi ministre de l'intérieur na génn ne nous garantissons comme pour tout citoyen sénégalais dafa war a wuy ji il a des mais wuy ma. Mhm. yow ak diw. Mhm. foo ngeen ñëw ñu àtte leen ku tooñ. moo ma tooñ non kii moo ma tooñ aji saar ne waaw daf maa def lii daf maa def lii kii ne ni noonu demeewul noonu waaw ci biir atte nan ngay dóoree sanctionné te atte go brutaliser te atte go toj vitre te atte go bunkeriser kër jàmbur te atte go ak la ca des donc revoyez votre copie jàmmal leen sénégalais yi jàmmal leen nu jàmmal leen nu vous ne jamais et foofu lay tëjee ci kàttanu yàlla def dictature Sénégal billaahi wallaahi talaay bu ngeen ko yaakaaree nag ba imposé ñu ko wala yaakaar ne mën naa nekk ma xam ne yàlla may na ma xam ne Sénégal du réew baatin Sénégal lu nu bëgg a lijjanti fii dañu kaa lijjanti ka mu neex nag takk say ndomb ba mu dëgër ko li takk ba mu diis la këfalu daa këfalu daa daa wëngalu la dem waaye yàlla sàkk na réew Sénégal mu la réew baatin loo këfalu këfalu loo wëngalu wëngalu yamb day attaqué. ah réew mi li muy métti métti métti loolu euh, tey mënuñu man de gisuma loo xamante ne mën nañ ko ko tuumaal jëm ci procès bi ndax boobu ba tey yéenay attaqué <laughs> yéenay dóori lacrymogène ah yéenay tëj buntu tëj fenêtre wàccee rideau waaye yéenay def lépp te te te ay avocat am nee nañu moom nekkul euh, sous le coup d'une ordonnance de prise de corps. kon lan moo fi indi problème bi yépp wax dëgg yàlla appel à l'insurrection kenn mënu ko wax. Euh, pour li nga xamante ne moom moo jëm ci procès bi et moom il a dit d'ailleurs Ousmane Sonko l'a dit bu li indi non li indi li indi tout simplement moom mu am désobéissance civile il a dit et expliqué que c'est parce que justement lépp luy àq ak yelleefam moom euh, sàmmantewuñu ak moom donc vraiment il a pris

ci tribunal bi qu'est-ce qui se après nag foofu la àtte bi gën a neexee ci askan wi. mu leen est xam nga ne foofu la àtte bi gën a neexee ci askan foofu la gën a neexee nag ci askan wi maa la wax loolu te nag wax ji wax ji mooy nañuy bàyyi xel itam ne on a besoin que Ousmane ko bokk ci élection présidentielle yu 2024 l'enjeu c'est ça parce que aujourd'hui lu nu xeex xeex te moom du bokk tamit loolu problème la na bu koor donc il faut que mu bokk beneen bi ci topp et foofu lay daal lépp ndax na ndax ndax ndax na bu koor ngaa gis nit ku takk ay ndomb ba fees li papa Assane di wax. <laughs> gis day mosoo gis loolu mosoo gis nit def du hmm? Hmm? Hmm? dugg ci caaya soo ko gis les yambres riotent quand il attaque <laughs> ah une dafa metti dafa metti la nu ko dee def franchement dafa metti il a trop supporté sincèrement te nit ku nekk nit nga nanu xam ne rek ñun ñëpp yàpp si siddit moo nekk ci sunu sunu sunu der bi donc vraiment c'est important que yenn yi ba looloo nanguwul ñu la koy teg rek bul ko teg sa morom loolu leer ne boo ko tegee sa bopp diis na metti na àttanoo ko mais bul ko yëkkati di ko teg keneen Hein, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'intérêt personnel. Il s'agit de l'intérêt d'un pays qui s'appelle le Sénégal. te dëkk boobu nag dafa nekk ci loxo loxoy destiné ay nit nit ñooñu ñu ngi tudd le peuple ñooñu ñoo war a mën a tànn lu leen neex moo tax gis nga euh, il faudrait que mu am ñoo xam mais il faut ñuy déglu le message du peuple c'est hyper important bañ ko jàppee loo xam ne nii rek dañ naan non lii benn moment la rek day jàll déedéet problème bu nekk dañu ko dee saafara problème kenn du ko reporter problème dañu koy régler une bonne fois pour toutes nga xam ne lii dootuñu taxawati di waxaat les mêmes choses di débattre encore des mêmes sujets aujourd'hui on devrait pouvoir évoluer Sénégal gi waroon nu mën a weesu fii bu yàgg parce que lii nuy kaas ak di ko wax yëpp dañu ko dee kaas di ko wax depuis un bon moment bu dee ci question troisième candidature on parle et xeex nañu ko depuis 2011 ngir yàlla lan moo tax réew mi quand on deux pas ñu ngi ci yoonu ngi ci yoonu victoire non ñu bu ñu jubbantiwul bu baax li nga xamante ne moom moo xew fii aujourd'hui tous ces jeunes yi nga xam ne jaral na leen xeex matin midi et soir il faut ñu comprendre objectif bi lan la te l'intérêt comme je l'ai li tax ñuy xeex ñoom ñëpp c'est parce que dañoo bëgg Ousmane Sonko bokk ci élection 2024 bi loolu mooy dëgg mm-hmm. donc aujourd'hui ce tribunal là ak ni nga xamante ne pardon cette affaire là bi bi nga xam ne moom la ñu war a régler ci tribunal bi na nan moom Ousmane Sonko il doit pouvoir il doit pouvoir se sentir bien se sentir en sécurité doxal li nga xamante ne moom la war a doxal parce que xam naa ne il a dans dossier là en tout cas ci lu ñu ci jot a dégg yëpp témoin ya ca am ñi ci jot a génn en terme de preuve ak yeneen yu ci dem yëpp xam nga bu ñu yeggee tribunal foofu moom mooy cappaandaw gi na bu koor a décidé de prendre la destinée de ce pays euh, Sénégal ci seen loxo bopp ñoo koy gérer seen bopp ñoo koy téel seen bopp ñooy tànnal seen bopp bu boobaa na nga war a xam ne kon mbaatu force reste à la loi dañu ko dee wax dëgg mais force dëgg mu ngi féete ak askan wi te askan wi faaw ñu leen di bàyyi xel yëkkatee coow am démb damay waxtaan ak kenn koo xamante ne du ma ne ci ñoom la bokk waaye ci ñoom la far euh, li may wax nee na dafa am ñoo xamante ne dañuy euh, jëfandikoo image amoon ci tribunal fan yi ñu génn naan dafa am benn vidéo boo xam ne dañ ko war a projeté mu ne ma vidéo lan mu ne ma nabu jour bu ma mënee ñàkk argument rek mooy bu ñu yëkkatee procès bi ak révélation yi ci am yépp ci laay ñàkk argument yu ma leen defa défendre parce que man gisuma argument bu ma leen mën a défendre ci procès bi nga xamante fatt sénégalais yi mais mu ngi tënk économie bi am nay sénégalais yoo xamante dañ ciy ñàkk di dizaines de millions ci benn bés boobu nga xamante ne ñoom ci la ñuy toog di tënk économie Sénégal ci benn procès boobu kon jot na ñu bàyyi ko mu wuy ci mu jeex une bonne fois pour toutes et tourne la page daal dëtmal nag élection yi nga xamante ne ci la ñu jëm en 2024 alors dernier point bi écran bi écran bi écran écran télé